أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين النبي المصطفى خير من طاف وسعى وأكرم من لبى ودعا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi daje nañ ak yéen ci pàkk bu sell ci barab bu barkeel bi fas yéene fàttalante ak yéen benn ponk ci ponki lislaam yi nga xam ne waxtu yi ñu jëm moom la ñu dëgmal sunu kanam ñuy ñaan bul yàlla tabaraka wa taala ñi yàlla baaxe ci at mi ñu war ko joxe ji ñu ñaan yàlla yal na leen yàlla nangul waaye lu njëkk mbokk jullit yi ñuy dugg ci ponk boobu wala farata boobu war nañu def benn muqaddima wax kaaba gi mooy lan al baytul atiq néeg bi nga xam ne yàlla daka goreel te mooy alkaaba al musharrafa kaaba gi nga xam ne yàlla da koo teddeel da koo teddal moom mooy néegu yàlla bi yàlla goreel mooy tàppuwaayu bépp xolu jullit bépp jullit boo gis muy daagu ci kaw suuf góor la walla jigéen la xale la walla mag xolam kaaba gaa ngi ci moo xam jullit boobu penku la nekk moo xam sow moo xam gànnaar moo xam bëj gànnaar ay namaakaanu fi anha il maamura fu ñu mën a nekk ci kaw suuf seen xol kaaba gaa ngi ci waaye waxuma la seen xol kaa bagaa ngi ci waaye seeni jër fa lay jublu ndax jullit bi fu mën a nekk ci kaw suuf danga koy fekk buy julli jëm mu ngi koy jubal ci penk bi wal qulubu xaasia danga koy fekk jëm mu ngi koy jubal ci kaaba gi ànd ak xol bu toroxlu toroxlul yàlla tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne mooy kenn juróomi yoon ci bis bi guddi wala bëccëg ab jullit jëm bi mu ngi koy jubal ci kaaba googu nga xam ne mooy néegu yàlla tabaraka wa taala waaye da nga fekk jullit ñi ci aj ñuy sotteeku bàyyeekoo ci ay warwaay ci géej ci jaww ci suuf warwaay bu doomu aadama mën a war yor kàttanam doomu aadama dana ko yéeg ndax jublu ci néegu yàlla boobu tabaraka wa taala ñi sotteeku di jóge fu ne ngir joxe farata boobu nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala gàll seeni loos waaye boole koo wër kaaba googu nga xam ne mooy kaaba gu tedd loolu nag buñ ko doon laaj kañ la ñuy wax ne la tàmbalee danañ wax ne munzu banaaha xalilullah ibrahima alayhi salaam loolu tàmbalee na depuis ba ibrahim xalilullah tabaxee néeg boobu nga xam ne mooy néegu yàlla tabaraka wa taala li takuna kaaba hiya awalu baytin wudia linnaas li yabudullah fii kon di nga dégg ne ibrahima alayhi salaam moom day mooy ki tabax néeg boobu nga xam ne mooy néeg bu njëkk ab jullit di fa jubal xar kanamam guddeeg bëccëg pour mu nekk néeg bu njëkk bu ñu defal bu ñu defaral doomu aadama yi pour ñu jaamoo ko yàlla tabaraka wa taala waaye néeg boobu mbokk yi danoo war a xam li tax ñu samp ko danoo war a xam lu tax ñu tabax ko lu tax ñu teg néeg boobu li yaabudullaha fii ngir ñu jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla ala hudan wa basira bi aqidatin soofiya xooliya jaamu ci yàlla ak ci njub waaye jaamu ci yàlla jaamu yàlla goo xam ne da nga koy teg ci basira ci mooy xam-xam doo làmbatu nga ànd ak pas-pas bu wér pas-pas bu set bu wéet ci ay pas-pas caaxaan ak ay déggin yi ñaaw mbokki jullit yi tey bu ñu xoolee suñu mbooloo danañ fekk nit ñi seeni pas-pas seeni pas-pas wuute danañ fekk nit ñi ñi ci ëpp ci ñoom caaxaan lañ gëm waaye déggin bu ñaaw bu ñu dégg diine déggin bu jàdd looloo tax tey suñu jaamu yàlla yi daanaka ay geste kese la bu fekkee julli kàbbar rukkoo si gir si jóot sëlmal daal di jóg faxasu bu dee koor bañ a lekk bañ a naan dong bu dee aj dem naa màkk ñëwaat naa muur sa kaala jël sa gitara teg sa bopp ñu naan la àllaaji wala ñu naan la ajaratu daanaka léegi suñu jaamu yàlla yi lii rek la li ko waral mooy pas-pas yu ñaaw yu ñu fas ci suñu biiri xool te nanguwuñu koo génne nanguwuñu koo bàyyi waaye bokk na ci li ko waral ba tey mooy déggin bu ñaaw bu ñu dégg diine borom bi tabaraka wa taala wax na ci sura ala imran inna awala baytin wudia linnas lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayinat maqamu ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين borom baa ngi xamal ci aaya bi di nekk ci sootu Aali Imraan mu ne néeg bi ñu njëkk a tabax te bañ koy tabax la taxoon ñu tabax ko mooy defaral ko nit ñi mooy Makka mooy Kaaba gi néeg boobu la njëkk a samp bu jaamoo ko yàlla mooy kaaba muy néeg bu barkeel mubaaraka waaye néeg boo xam ne njub la pour doomu aadama yi borom bi nee na ay aaya yu leer moo fa nekk yu ne fenn yu doomu aadama di dugg di ci teg bët bokk na ci maqaamu ibrahim barab ba ibrahima doon taxaw di tabax kaaba gi moog doomam ismail borom bi nee na barab boobu sax ku ko dugg rek am nga sécurité wa man daxalahu kaana amina yéen doomu aadama yi yéen jullit ñi yàllaa ngi leen di woo nee na walillahi ala nnaas xijjul bayt man istata ilayhi sabil yàllaa ngi leen di woo yéen ñi am kattan yéen ñi denc am koom yéen ñi am alal mën a egg ca ka néegu yàlla boobu yàllaa ngi leen di woo nee na farata la bu mu gàll ci seen loos ngeen jël ci seen alal dem ci néegam boobu jaamu jaamu ko fa moom yàlla nee na képp nag koo xam ne dégg na woote bi lànk ba na dem di ngott ngottloog nay nay lu tëdd ci alalam yaakaar ne bu aji jee alalam day jeex wala nangam ak nangam borom bi nee na wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin képp ku dégg sama woote bi lànk bañ a ñëw weddi man yàlla doylu naa la kon loolu benn muqaddima la woon introduction boo xam ne dañ ko doon def pour ngeen xam ngeen dégg fa ngeen jëm lu fa nekk ak su ngeen demee lu ngeen fay fekk ak lan moo leen tax a yóbbu lan moo leen tax ngeen dem suñu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy arkaanul islaam kennuy islaam ayyuhal muslimul karim yow sama mbokk jullit bu tedd sabata an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihayn annahu qaal بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه السبيل yow sama mbokk julit yéen samay mbokk julit sax na jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñaari téere yi gën a wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fondement yooyu nañ diine ci juróomi mbir kenoy islaam juróom la ginnaaw ba nga seedee ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni la ca tegu mooy taxawal julli juróom la ca tegu mooy joxe azaka la ca tegu mooy woor weeru koor la ca tegu mooy aji néegu yàlla bu tedd bi kon dananu leer ñun ñëpp di ay jullit bi ann al xaj ruknun min arkaani islaam aj benn kenn la benn ponk la benn jën la ci jën yi téye lislaam benn keno ci keno yi nga xam ne ñoo téye mbaari lislaam aj ndeke bokk na ci laa yutimu islaamu saxsin istata ila al bayt sabilan xata yaxuj képp koo xam ne ci ñun denc na alal mën naa aji ajiwul islaamam matul ngëm yàllaam des na kon jullit su ko yàlla dénkee am am mu denc am koom lu ko mën a ajiloo na fexe mu aji ndax dee dee betti waaye toog di def defle bama bama bama ba dee ñëw këf la fekk denc nga na nga yëg ne keroog boo yeggee ci yàlla du baax ci yow kon nag aj benn keno la ci keno yi lislaam diine jullit du mën a mat lu dul mu dem aji kon mbokk jullit yi bokk na ci xéewali yàlla yi def ne aj benn yoon kese la la war ci sa dund an alxajja laa yajibu fi l umri illa marratan waxid mu leer ci ñun ne aj boobu borom bi tabaraka wa taala di la woo nga koy def yonent bi woo la pour nga koy defi ne benn yoon kese lañ ko farataal ci yow yeneen yi ngay dem yépp di baamtuwaat ay naafila la waaye benn yoon la ko yàlla tabaraka wa taala farataal ci yow li annahu lama farada allahu alxajj qaala rajulun a fi kulli am ya rasul allah qaala annabi alxajju marra fa man zaada fa huwa tatawwa keroog ba yàlla farataalee aj ci jullit yi kenn ci jullit yi dana yonent waa ndax at bu nekk dañoo war a aji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko aj benn yoon dong la képp ku dolliwaat dangaa coobarewu waaye aj benn yoon kese la waaye mbokk yi wa yajibu an yakuna alxaj xaalis lillahi waxdahu yow sama mbokk julit bi aji maa ngi dénk sama bopp di la dénk sa aj sellal ko ngir yàlla na nekk ngir yàlla bul aji ngir bokk ci ajaratu yi bul aji ngir bokk ci àllaaji yi bul aji ngir tiitaru bul aji ngir wane sa am am bul aji pour réy-réylu sooy aj ajil ngir yàlla tabaraka wa taala wa an laa yakuna fihi riya wala suma li anna allah taala qala fi lxadis alqudsi ana agna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i xayri taraktuhu wa shirkahu mbokk julit wi nga lawaay booy aj bu ci ngistalu bu ci déggtalu bu ci wonewu bu aj ngir nit ñi dégg ne yaa ngi aji aj nga nangam yoon fukki yoon fukki yoon ak juróom ñaar fukki yoon de dem naa màkka ñaar fukki yoon man de fi ma toll ni wax dëgg yàlla mbeddi màkka lépp laa xam man de nangam ak nangam nga la waay yow sama mbokk julli loolu bu mu la dugal ci jaamu yàlla gu màgg gi bul aji ngir ñu dégg la bul aji ngir ñu gis la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ci xadisul kursi ne yàlla nee na man yàlla dama doylu bëgg ku ma bokkaale képp ku ma bokkaale képp ku ma jëfal benn jëf nga boole ci keneen ma bàyyi laa kooka allahu akbar aka neexoon tey julli ñu dégg xadis bi képp ku ma jëfal benn jëf jëf jën ma jëfal man yàlla nga boole ci keneen ku dul man ma balaak ko ndax man yàlla du ma wujje maay sa boroom man dong ngay jaamu mënoo ko nga bakku mënoo ko nga bakku kon yow jullit sooy jaamu jaamul yàlla bul ci boole keneen sooy topp toppal yàlla bul topp keneen booy wóolu wóolul yàlla booy yaakaar yaakaaral yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu mbokk yi kon noonu la aj nekkee ponk bu war kama yajibu an yakuna alxaj muwaafiqan lima jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fexeel booy aj jaamu yàlla gu màgg ko fexeel boo koy defi nga dëppale koog na ko yonent alayhi salaatu wasalaam defe woon waaw tey jullit yu bëri dañuy aji waaye duñu am tiyaaba lu ko waral mooy defee wunu ko na ko yonent bi defee woon wa min samma fa innana nuusi ixwaanana alladina yuriduna alxajj loolu tax ñoo ngi dénk suñu bopp di dénk mbokk jullit yi nga xam ne ñoo ngi aji ñu gaawantu rek ñu bañ a gaawantu rek dem tukki lu dul ñu xam naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajee woon ñu ajee noonu bu la biya bett wala aj bett la nga farax-farax yi rek pëccëxloo na ko nit ñi defe man de pare naa pare naa vol nangam laay dem kërti kërti fekk la la waroon yóbbu defoo ko mooy nga jàng naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ajee woon nga ajee noonu fexe leen ngeen jàng ni yonent bi aje woon ngeen roy yonent bi ci jaamu yàlla yépp yu ngeen di def ndax yonent bi kat keroog ci aj caarafaat ca naaj bu tàng ba ba nga jàkkaarloog saxaaba yi naan leen xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xool leen ci man nu ngeen jaamoo yàlla kon mbokk jullit yi tomb bi mooy tomb bu njëkk ñu daje yéen tey di leen leeralal li njëkk ci boo waree aji te mooy wax nañ leen kaaba gi fàttali leen kene lislaam pomp lislaam kon dégg ngeen ci ne aj farata la lu war la benn benn la ci keno yi nga xam ne keno yi lislaam ab julit bu yàlla dénk alal dafa war aji ndax aj dafa war alquran dëgëral na ko sunna yonent bi alei saai sallam feddali ko yàlla ne walillahi ala nnas xajjul bayt man istataa ilayhi sabil yonent bi alayhi salatu wasalaam ne inna allaha kataba aleykum alxajja fa xajju yàlla farataal na ci yéen aj dem leen ngeen aji kon yéen mbokk jullit yi lii mooy fàttali bu njëkk bi incha allah bi isnillahi bu nu paree ku ci am laaj bu muy laaj mu laaj suba ci waxtu yi encore dañ fi daje daa di waxaat yeneen ñaari tomb incha allah bi isnillahi fii ba dem di jot dañ daje ak yéen fii ci keppaar gi fàttalante ak yéen bés bu nekk ñaari tomb ba keroog yàlla di def ngeen fi bàyyeekoo jëm ci néegu yàlla bu barkeel boobu yu ñaan yàlla lépp luñ fa def yàlla nañ ko yàlla nangul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu